asalaamaaleykum mbokk yi ñu ñëwati di leen ziar di leen ndokkale ci màggal gi ñu jóge tey ñaanal yàlla ñëpp ñu màggali woon ñu dellu ci si jàmm lii ñu gis nii ñuy xewee ci autoroute Ila Touba bi kaaru Al Azhar transport ngeen gis ni lii nguur gi war na cee wax ñu koy ñaawlu di ko naqaru lii moo war a dañ Sénégal lii mooy image yu bëggut a gis Sénégal nan la nit ah yore sa kaar yeb ko ba mu fees dell ba bu ba boo ñëwee ba si station à péage bi ñuy teggi ay bagage pour oto bi mën a jàll lii dafa ñaaw ci gis ñaaw na ñaaw na ba fu ñaaw mën a yem li ñu war a mën a wax mooy que ni état bi war nañ jël ay mesures yu strict ci lu demee nii lii moo war a xew yi jàpp ay bagage ba maara day taal yi oto bi bu defee benn secousse wala dara lu ndaw sax bagage yi penché wu mu mën a jur lu ne ñu koy ñaawlu di ko ñaawlu ba fu ñaawlu ma dem ñuy interpellé autorité étatique yi ñu yor wàllum transport ñu xoolaat seen doxalin ndax lii ñaaw lool lool असलकम